maanaam mooy sa digganteeg Boucher nag dëkk bépp nee nañ jot nga avance yàgg na moo gën la milliardaire tëgg na ko daan naa Boucher ba pare loolu du question moom kon àddina wërngal képp leerlu nañ ne yow ak Boucher seen combat taxaw na kenn waxatul loolu le 22 août la bu soobee yàlla kon mbokk Pikine Info gauche droite signé na combat bi gauche droite signé na combat kenn waxatul loolu sa digganteeg info jeex na waaw kon jeex na mook Boucher fii ci Pikine Info kon nettali ci làmmiñu borom maa Boucher leer na nañ mel na ne allahuma la ko sumpo bi nga amant waaw kon jeex na jaagi jëf voilà difri ka fa fort fax firli maa xaddanto maa xar